répertoire waa foofu la ñuy dugg xam naa mooy dernier point bi après li ci des moom santé dañuy kii léegi répertoire bi dañuy xool parcours defe naa répertoire bi am na lu ci sëñ Ba doon wax sànq. Hmm. muy xasida yu gudd yi ak yooyu. mais bon dañuy def benn analyse ci son pré son yi nga xam ne usni bi ñu doon dégg léegi euh, ñu dégg daaj bi wax dëgg yàlla mu daaj bu mu doon daaj bu bees ci ci ci nopp yi. bon xam naa li may njëkk a laaj mooy xam naa da bon xaaral ma jaaraat ci album boobu. Euh, waajahat nii la daaju nur daare ni hmm. asiru maal abraari daaju nur daare ni madal xabiru daaju nur daare ni kunkaati man daaju nur daare ni usni ala daaju sëñ maxtaar mbay hmm. sindiidi daaju sëñ safaa jóob mi daa di laam yi daaju daaju bàyyi su ndaw hmm. mooy bu naafex daaju waa kër sëñ masàmba léegi moom man li may njëkk a question may njëkk mooy seetlu nañ ne am na ñeenti daaj yu ñu bind daaju nur daare ni léegi loolu dañ koy dama koy faral di gis ci son prey ci ci daara yu bëri daara yu mag yi da ngay gis daaju is bu tarax yaa daaju yu demee noonu maanaam loolu lan lay firi mooy dafay firi ne mhm. daaj bi kenn ku nekk ci daara ji moo ko fent wala boog daaj bi comité pédagogique daara ji moo ko fent mhm. wala boog daaj bi mag sàngam moo ko jàng waaye bañ ko jëlee modifié nañ ko maanaam def nañ ci niveau de modification boo xam ne àgg na foo xamante ni bii mën nañu wax ne daanaka 80 pour cent daaj bi daanaka comité bi moo ko ci yokk. lan loolu lay xam nga wax naa la sànq ni la. Mhm. liggéey Sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw. tànk kanam la am. parce bu buñ ko réeree mbir ñun ñii ëllëg ñooy nekk mag ñi ñoom bàyyi sëriñ ba ngay dégg ñoom bàyyi Lat Cuun ñoom bàyyi Ahmadou Mourid ñoom bàyyi Gaye ñoom bàyyi Youssou ñoom bàyyi Faty moom ngay déggee ëllëg dëgg la waa léegi pourquoi ñu nangul mag ñi daaj yi daaj yi daan jàng te mënuñu ko nangul xale yi tey te ñoom boobu ay xale lañu woon mais yàgg gi ñu yàgg ci xaside yi ñoom bàyyi seefal xattaab ak Baye Cheikh Lo naa la mbir loo loo yàgg am ci expérience. ndax fukki at ci xalaatoo ko. woon. Mhm. te loolu too yàgg am ci barke. man tey jii du ma yàgg naa ci xas day du mën ni yàgguma ci. Mhm. waaye normalement war naa mën a am daaj. Mhm. daaj bàyyi sëriñ ba moom war naa mën a am. daaju bàyyi ëmma cuun daaju bàyyi laaj cuun daaju bàyyi faati wala yow. jaay moom pour ñu nangu sa daaj foog nga màgget. léegi lool moo dul yoon nag léegi loolu nañ ko tegaat ci xel <laughs> parce que tamit mhm. sëñ Tuubaa mbiram amul tànk ginnaaw tànk kanam la am mhm. ne woon dëgg mhm. waaw mag ñooñu waa léegi mag ñi kan moo woon joxoon daaj yi jàng daaj bàyyi Matar Mbay kan moo ku ko jox bàyyi daam ku ko jox daaj bi c'est bu ñu demee ba seetlu ne ah? am nañ problème ci dégg daaj bi Fall sëñ Aliou Fall kan moo ko jox daaj bi sëñ Moussa Diop kan moo ko jox daaj bi maanaam bu ñu amee war a problème bu ñu amee problème ci dégg daaju sëñ sëñ sëñ daaju sëriñ ba mm-hmm. te amuñu problème ci déeju daggi daaju sëñ boole mbay ça veut dire que doo comprendre lan mooy wax lan mooy lan bi parce que bon peut boole mbay doon doone doone doone mag la mag yu toll noonu c'est sorewul sëñ Basirou Niass <laughs> doone mag la yu àgg foofu Ibra Gueye sëñ Ibra Gueye nangul nañ ko am daaj Ibra Gueye waaw daaj bi moo da koo dikkal xaarim bi moom dafa mel ni ñoom keroog dafa am lu ma wax Bamba. ma ne ko ko war a defaat seetlu. ma ne ko war nañ parce que ñoom nangul nañ ko rajaskat yeeg ñëpp. mais kuréelkat bu këree daaj ñu ni waru ko këree. waaw loolu moom problème te kuréelkat bi yow xoolal kuréelkat bi këree daaj bi xool kan la. Mhm. benn yow yow bu xam day xëy rek jàng nii ku yàgg jàng la soo waatee daajim kere yi histoire rabin xafarin boobu mhm. loolu ba léegi dafa neex dafa mage man ko jàng suñ Tuubaa du wax dara mais waa du moo man noor daay ni mi am na daa jox daf ma faa dikkal ma kii ko mais yooyu man ko jàngal sëñ Tuuba yaa ngi dégg kon loolu loolu man pour man sax yokkute la xam lan moo ban mooy gone ko juddoogut xonk cur xamul dara ci njàng naan day kere ay daaj tamoon loolu tuddee moo kere man daaj man na ma dikkalee noo xam ne mën na jékki-jékki ni ñëw ci yow mu leen la lii kere woo ko mais dañ la ko dañ la dañ la koo dee waaw léegi sëñ la maanaam loolu waaw boo xoolee sori na léegi est-ce que maanaam systématisation boobu ak fent daaj mhm. amul ay normes yu mu war a suivre ci jàng maanaam bañ a systématiser nii rek wala fent nii rek selon air dictionnaire rek ngay am sa jëkkati am sa daaneel mhm. waaye est-ce que maanaam comme bu ñu demee ci yi dem ci maanaam li nga mhm. xamante ne moom mooy way est-ce que amul ñu ne boo yëkkatee nii nii nga war a daanelee wala boo ah ci woy nii ak nga war mu bañ a nekk fente boo xamante ne rek day maanaam day nekk tamit lu jàngaabul parce que léeg-léeg ma am kuréel yu ma gis yoo te ne dañuy am air yu ñuy jàng yoo te ne waaye maa ngi jégalu amul daan yëkkati baag daaneel ba duñ bokk. wax naa la ko ci biir wax. est-ce que loolu loolu maanaam. maanaam waaw maanaam mu doy. maanaam mu doy war daal maanaam est-ce que loolu tamit est-ce que loolu tam maanaam du du ma mat amul amul maanaam réglementation amul. am na am xam nga xam nga mbir moo gis rawatina njàngum xasida mm-hmm. dafa am lu ñuy wax musicale. Mm-hmm. mooy bi nga xam échelle de son bi nga xam ni. Mm-hmm. daanaka. Euh, lépp bépp daaj buy soqeekoo ci échelle boobu. Mm-hmm. maanaam maanaam warul warul woroo warul woroo boo jëlee daaj bu mel ni daaju sëñ ma sëñ sëñ Mayib tey mm-hmm. sëñ Mayib daanaka ci sëñ ma ci waa kër sëñ Masamba la soqeekoo. Mm-hmm. yaa ngi ci échelle musicale boobu la bokk. yaa ngi dégg. kon daaj boo mën a jël. bu ñu fent. warul génn warul génn daaj ñàngum xasida bu génnee ñàngum xasida rek. day mujj dem foo xam ni ku ko dégg rek donte xamoo ñàng sax dinga xam ne lii lii kan wax dëgg yàlla fent nañ ko waaye nekk na loo xam ni kenn waru koo jàng gis nga daj bu bu bu bu bu ñu war a jàng bu wér ak ku ko mën a fent ku ko dégg day da ko koy day yomb pour mu nangu ko loolu nag xëy na day aju ci mu doon nit koo xam ni xolom sell na sellaay goo xam ni du xool ay jëmm comme ni ko arajo waxal sànq waaw loolu dafa am solo waaye li nga wax tamit loolu dafa am solo dafa am solo mm-hmm. waaye lépp tamit xam fan lay dépendre mm-hmm. ci dooley dooley comité pédagogique yi mm-hmm. foofu la rawante foofu la ñu rawante dañu gis koo xam ni amaana day jël daaj boo xam ne am na kuréel bu ko jàngoon waaye xëy na kuréel bi ko yeesalaat xëy na ña nekk am nañu expérience boo xam ne lu luñ ca dolli dañ ciy dolli loo xam ne ba da nga da daaj bi du daaj bii la ñuy jàngoon. Hmm. ndax day yeesaat ci yow. Hmm. waaw waaye li ci ëpp solo pour tontu li nga wax daaj boo mënti gis war na am ay sonorité wala ay mélodie yoo xam ni daanaka génnul ñàngu xasida hmm. li nga wax dafa am solo. waaw mais boo sentir. pour man pour man. boo déggee daaj sa xel dem ci benn daaj boo xam ne xëy na ci saa nga ko doon déggee rek problème am na. waaw. maanaam daaj bu mën a doon doonte daaj bu bees la daaj bu mën a doon doonte daaj bu bees la maanaam dafa war a dafa war a woroo totalement ak beneen daaj boo xam saayir boo xoroon dégg mais booy dégg booy déglu lii sa xel dem ci leer rek xamal ni jafe-jafe am na jafe-jafe am na waaw loolu moom mbiru Sëñ Tuubaa moom amul dara loo xam ne moom mën nga ko méngaleeg loo xam àdduna la waaw kon loolu tamit lu jar leeral la euh, léegi am na beneen question bu buggoo bëggoon laaj mooy xam nga des fois. daaj mën na nekk sax daaju mag. mais mu bindoo noo xam ne peut-être boo demee ba nekk kuréel gu mag. ba am benn standing bi rek. maanaam day euh, bon daaj bi du ma ne day terre mais day yomb ba mu ëpp. Hmm. dégg rek man. waaw. léegi yooyu yooyu yooyu est-ce que mës na leen euh, arrivé par exemple ci benn daaj. kuréel gu mag moom. parce que uh-huh. suñ bamb kuréel gu mag moom. Mm-hmm. dafa am jamono jii lu war a daw. Mm-hmm. muy systématisation. Mm-hmm. bu bari. day rey ambition kuréel gu mag. kuréel gu mag war nga fexe boo jëlee daaj fexe ba ñedd daaj bi ñedd ko. waaw copie conforme jàngee ko mu am originalité. boo xam mais mais foofu am na sew sew bu fa nekk sëñ laat. Mm. mais yow li nga posé noonu question ñun suñuy daaj. day daw ba dix ans du sàppi mën naa limal daaj yu bëri yoo xam ne tey. jàng nañ ko lab mi. mën ko jël sa wala cuub ëmb. buñ ko saa buñ ko jàngee day yees. mais tënk baaw yoon moo tax. maanaam ñun duñ jàng daaj. njëkk doyal ñun ñi ko ñi ko xam ne yow doo ko sawar a sax jàng. man man daa bu kuréel gi matoon tey bu ñu ko jàngee fii da nga yaakaar ni tey lañ ko tey lañ koy door a jàng jàng nañ ay cinq mhm. ans ci ginnaaw ay mhm. loolu ci li laat wax ci tënkin bi la tënk voilà voilà gis nga tënk boobu gis nga copie loolu dafay xaw a controversé tuuti des fois kuréel gu ndaw day jàng benn daaj mu naqari kuréel gu mag jël ko jàng ko mu neex parce que tënk ba la tënk bi li ma li ma jubloo ñëw ci beneen question ci mm. question mooy maanaam tey copie conforme mm. gaa parce que kuréel gu mag a koy def. mais tey est-ce que dañoo war a copier copier ba copier des imperfections maanaam copier loo xam ne parce que des fois nga dégg ci ñàngu mag ñi loo xam ne. bay xaw a nduru par exemple xaw a njoogaane exemple exemple exemple exemple. d'accord exemple non non si si non non non maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw. damaa baa ngi soo koy dikk nag. <laughs> bamba ma maa ngi ñëw. ma non non non maa ngi maa ngi ñëw. maa ngi ñëw. Mm. suba du ma njoogaane mais. Mm. loo xam ne ngir nga adapté ko ci kuréel dafay jafe sëñ Moustapha Diop par exemple ci raaye. Mm. ci saaltu yi par exemple. wala ci yenn ci ci ci ci yenn par exemple ci raaye par exemple. ci raaye am na ci yenn tolluwaay yoo xam ne yu ko boo boo ko déggee. pour nga adapté ko ci kuréel parce que dafay mel ne des fois lu ñu xaw a dégame. waaw léegi foofu li nga wax xam naa mais loolu. Mhm. li mooy li la laat wax rek. Ah. gis nga suñ Moussa Diop. waaw ah. sëñ Massamba. waaw ah. sëñ Cissé. waaw sëñ Ndaw. waaw Baliou Fall. consort googu noonu noonu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. waaw sëñ Mbacke Jaxateeg. waaw Baye Dame Lo. ñoo ñëpp. day mhm. Matar consort googu. waratuñ cee kuréel yu mag yi laal waxuma la kuréel gu ndaw la. waaw kuréel yu mag. waaw kenn waratu koo jàng di ko systématiser loolu dafa xewi. lu xewi la lu xewi. waaw mais systématisation bi tamit. ci benn benn benn instant. te niveau niveau li koy yokk. waaw jànkat li yokk niveau mu jéem lu mu munut. Mhm. gis nga Bamba. goo gis ñuy jéem luñ man mhm. seen niveau du yokk. sa galanu baat sax pour mu gën a xereñ mhm. faaw ngay jéem loolu gën a boobu ngay wax mhm. genre yooyu noonu boo koy jéem day yokk sa galanu baat da ngay gën a xereñ ci way te sa galan day gën a ñëw te da ngay gën a mën a jàng day yokk sa niveau kuréel gu mag saa bu répété benn sëñ Moussa Diop répété ko original bu ñu jógee foofu sa niveau day yéeg ah, bu dee sëñ Massamba noonu faaw ngay jéem loo mun amul benn jàngkat jamono ji boo xam ne rek marge de progression jeex na Hmm. loolu foofu ñu gëm ko. Hmm. maanaam koo xam jeexal na téere yi. amut amut ñun sindi di ren hmm. sindi si Moussa Diop. loolu nag li la koy may. loo gën a sax ci ci ñàngu mag ñi. sindi si Moussa Diop gis ne semence de progression si Moussa Diop bi njàng ren. ñun dañoo mel ni kuy door a tàmbalee jàng. parce que liñ ci loqati. ak liñ ci ah, daj liñ ci daj. dafa metti mais par exemple ñeenti yi la yaxaa dafi safar. xilli waxi bii bi safar kuréel yi mag yi sax bib bi lañuy wax bib bi xam nga suñ ci waa bindul bib bi safar ñun loolu ñun dañoo toog xoolaat xam ne mag ñi bii bi safar la bii bi sa loolu mooy njàng mais bib bii te kuréel gu jàng vingt ans bib bii lay wax ba léegi te du kuréel mag yi nekk ci dëkk bi sax bib bi la ñuy wax te du bib bi bii bi sa sayidatan li li rek lañ lay dóor waaw ah, loolu day moom Mariama Fokh ti ti yi bi ñu koy mujjee rep ñeent yi waa ko sama sàmpa ah. rumtu bisaa min hubbi kii la xam nga Ahmadou mu ne tur mu xeexe gaay ji kuréel gi déet waay gaay yi hubbu la yow hubbu ki bëri na ji Ahmadou bi moo ah, ci insisté hubbi kii gaay naan gaay hubbi kii na leer ba ñëpp taamu hubbi kii mais hubbu kii gis nga euh, sëñ Bamba. Mm-hmm. comme li nga ne léeg-léeg nga dégg ci lu joogaan loolu du ma ci d'accord ak yow. amul mag ñi duñ jàng mag ñi moom luñ def xala waaw waaw bàyyi ma yeggale rek bàyyi ma yeggale foofu tudduma njoogaane dans le sens péjoratif. waaw waaw waaw maanaam tudduma njoogaane. du du du ko tuddee njoogaane. waaw tuddee ma ko njoogaane. mais dama ne. da pour nga transposer ko. def ko de façon conforme. Mm-hmm. ak ni mu ni ak ay ci ci ci kuréel. Mm-hmm. dafay xaw a jafe. waaw léegi nag loolu li ma la ciy tontu. waaw mooy lépp dafa dépendre ci commité yi. Mm. gis nga dégg mag ñi moo gën donc on est à dépp day dépendre ci commune donc on est d' accord am na loo xam ne tënk lay laaj. am na loo xam waaw boobu am na loo xam ne. systématisation tënk la rek. waaw bi conforme bi muy wax. waaw waxul lépp. am na loo xam ne da ngay dégg mag mi. waaw mu def dara loo xam ne da nga naan fii nañ def nii. c'est que mm-hmm. copie conforme du ne. Mm-hmm. mag bi bu àggee fenn géex nga géex. bu nga xamee jékki-jékki noppi di une minute. Mm-hmm. kuréel bi dañuy àgg foofu noppi. parce que loolu. xam nga ñun non non xam nga loolu du wax mooy maanaam maanaam xam nga yaaman kasaani bi mm-hmm. xam nga xam nga yaaman kasaani bi soixante onze kasaani bi yaa ngi dégg mm-hmm. xam nga dañ ko war a so dañ koy soppi mm-hmm. kuréel yëpp dañ ko tàmm di soppi mu dañ ko jëlandoo parce que mag ñu soppi buñ ko yaaman kasaani dañ koo jëlandoo ñun ñëpp yaa ngi dégg mais dañ ko jàng képp koo fam fu ñu sampee ñu samp te loolu fi la fi la jàng toll ndax loo xam ne yow yàlla na ma yàlla baal quatre-vingt-dix ba léegi gars yi ñu ngi nee na jot na nag. ndax yow mu yàgg def ay at di jot na nag nga jël mag ñi di répété. njàngum kuréel. teg ko carrément ci systématisation lañ ko moderniser. lañ ko moderniser. Mhm, mhm, mhm. Ah. moderniser wuñ ko ci jàng copie conforme. waaw waaw mais nag war na jóge war na jóge nag ci systématisation bi. dem ci con copie conforme bi. fi mu ne mais nag boo tayalee rek doo ko mën. boo taayalee doo ko def li li sëñ Bamba di wax solo. boo amul jot foofu xam ne lan mooy wuute. doo ko def mhm. ci comité pédagogique yi te la wuute bi di amee. Mhm. gis nga mag ñi dañoo jafe dégg. Mhm. tàqarle keno ak dàncuuna sax dafa jafe. ci mag ñi <laughs> kon foog nga benn expérience bi. pour xëy na boo yeggee foo xam ni day jafe xam ni ko mag mi defee. expérience bi nekk ci comité pédagogique bi nag. Mhm. mooy warat mooy mooy génn loolu. fa lay intervenir waaw. Mhm. bu dee beneen kuréel la boo xam xëy na demewut noonu. Mhm. dañ koy defee noo xam ni boo deful nang sax day yàq daaj bi. dëgg la parce que yàq daaj tamit am na. dañuy gis koo xam ne kuréel boo xam ne day day day gis daaj bu jafe daaj boo xam ne xëy na kenn gisugu ko. waaye da koy tënkee noo xam ni dafay jaare yàqu. loolu it dafa jar a bàyyi xel. baax na léegi léegi maanaam euh, liir naa léegi programme bi. defe naa kon leer na ci wàllu daaj yi ñuy wax daaju nuuru daara ni léegi léegi léegi est-ce que yéen bu ngeen di wax maanaam foofu tam am na benn point ci wàllu confidentialité maanaam bu ngeen di wax daaju nuru daare ni maanaam lu tax ngeen di tudd da ngeen di bëgg ki nga xam ni moom ndax di du ñàkk kenn ku ko comme par exemple Serigne Ba daaj yi nga xam ne xëy na moom moo ko moom moo ko indi mais dañ naan daaju nuuru daare ni da ngeen di bëgg a bañ a tur fësal turu Serigne Ba maanaam nga xam ni dangeen di fësal daara ji rek wala book ndax léeg nga gis exemple lu tax defu leen par exemple daaj bi nga xam ni exemple Serigne Ba moom moo ko génne ngeen def daaju Serigne Ba lan moo tax ngeen jël option def daaju noonu parce que damay gis kuréel yi di ko def peut-être daaj yi ñuy wax daaju Hizbut Tarqiyyah xam nañ ki ko ki ci biir Hizbut Tarqiyyah ki ko ki ko ki ko génne. waaw léegi léegi option boobu maanaam ngir fësal daara ji. xam nga maanaam dañuy protéger jàngkat bële wala dañuy bañ mu fës pour moom mu yëg boppam wala wala lan la lan lan moo tax loolu. non non du loolu sax du question yëg boppam wala waaye kuréel maanaam mbooloo mi da ciy yërmande gi mooy tawfeex maanaam hmm. tey jii même boo créé daaj sëriñ boobu créé daaj wala bàyyi laat cun wala sëñ ahmadu hmm. ñu ni daaju daara ji hmm. nuur daal wala daaju oustaz wala daaju daara xudus moo gën ñu naan daaju diw ku la sañ sax da ci gis boppam très bien boo nee daaju diw diw moom bu yàggee fekkee amul expérience wala nekkul ko am maturité dëgg mën na dem ba taam léegi ci gis boom yaakaar ni moom fii ab star boo xam ne moom mooy jàpp daaj di créé yaa ngi dëgg moo tax xam nga mbiri kuréel rek suñu chaque jour ñun ñëpp loolu la daw. ndax kuréel ba léegi bokkut ak njàngum aw bokkut ak gars yi chaque jour dañuy bëgg muy yàllawee. sëriñ bi rek di ci nekk. moo tax ñuy daw yooyu. daw daaju diw. ndax tey bu ñu nee daaju diw keneen ku ne ci kuréel gi mën na ni ah ñu naan daaju diw man kenn tudd ma xaaral ma keree sama bas. <laughs> léegi bu kenn faale wu ko yooyu ne ay. ay tànnaas mën nañu ne ay <laughs> tànnaas ci kuréel gi xam nga wala. boo nee daaj noor daare rek moom ñëpp ngi ci biir. léegi ci biir loolu. ci biir pour compléter li euh, bu génnee ay ay ay ci hmm. màggal. Hmm. kuréel yëpp la engagé. ñëpp la engagé waaw hmm. daal nu wax rek. ki nekk kuréel sax dana lii. seen daaju boo daaju diw moom. boo boo nee daaju diw. keneen dina ne ci kuréel gi ëllëg bëgg a créer daajam. nga bañal ko ko. mu ne ka war léegi sëriñ maanaam dafa mel ni kon. maanaam li nga wax nii. bu fekkee juum ma. maanaam dafa lu ma seetlu ci maanaam boo xoolee ci jeen jàng bi rawatina. Mhm. ci maanaam préance màggal gu mujj gi. Mhm. Euh, gis naa am daaj yu bari yoo xamante ne yow mhm. daajoo ko. waaye keneen ak keneen ñoo ko daaj. <laughs> léegi xanaa day doon. maanaam faati bi nga te ne moom moo ne ci kuréel bi indi daajam. kon hmm. moom moo ko war a daaj wala boog maanaam nan la demee daal wala boog daaj bi. parce que gi jàpp naa ni hmm. jàpp naa ni jàpp naa ni maanaam ñi ñeneen ñi ma gis ñu daaj. Hmm. daaj yeneen daaj yi. ak ah, sama xam-xam. ak ak sëriñ ba ma xam. jàpp naa ni lootul ngir daaj daaj boobu. kon lan moo waral ñu daaj daaj bi dafay dikka ni ki indi daaj moom moo ne ah sama daaj la kon maa ko war daaj wala sëriñ ba nekk waa daaj ne quoi ah, yaa ko indi <laughs> kon daaj ko man sàng maam lan lan war a parce que jàpp naa ni parce que mën na ay parce que keneen mën na mën na indi leneen daal parce que te jafe-jafe man li ma gis li ma gis hmm. maanaam kuréel daaj hmm. daaj maam daaj lu ci ëpp ñu daan gis tey par exemple référence ñu ne sëriñ ba am daaj boobu daaju ko ki mu dend daaj ko dafa fekk ni kooku moo ko gën a jekku daaj boobu ah, waaye dañoo gis ne man mën naa ko daaj ba lan moo waral lan moo waral hmm. maanaam daaj boo xamante ne maanaam sëriñ ba mën na ko daaj ñu gis keneen daaj ko kon daf te boo xoolee yooyu dafa dafa dugg ci daaj ne daaj mooy daaj nuuru daare kon hmm. man sama xel day dem ci ni ko ne kon ki ko indi ki ko daaj moom moo indi daaj bi comme man am na daaj man am na man am na daaj ma ci kere boo xam man daaju ma ko laat mi moo ko daaj loolu laa bëgg maanaam ñaar yëpp ñaar yëpp amu aju ci daa aju ci baat maanaam moom moo ko gën a jekku wala que ni maanaam lan la daal noonoo xam nga naka la demee daal xam nga ñun dafa am nu ñuy doxee noo xam ne tey jii man bokk man damay yaatal damay nekkoom comme du ma xatal xam xatal mbir na tool boo xam ne jëru ngay xatal tey jii loolu dafa am solo daal mooy tey ñu jëlay daaju bees man na bañ a nekk nag chaque jour chaque année mais des fois nga jëlay daaju bees nga ni diw ak diw daaj leen maanaam day loolu day wane ni kuréel gi am na yeneen daajkat yu fi nekk yaa ngi dégg day wane ni man man mi koy joxe man naa ko de mën naa mën naa ko daaj mais tamit man lu ma lu ma yëg la rek loo xam ne dama bëgg gars yi daaj rek loolu kese la mais du question ñàkk télé pour daaj ko wala du question ñoom ñoo créé ñoo koy daaj déedéet man lu ma yëg la quoi mu yëg nii bàyyi laa dafa war a daaj daaj bi diw mi nañ ko jox mu daaj daaj bi affaire yi sa mboxloo bi mu neex <laughs> yaa ngi dégg maam yëg-yëg la rek te booy xool tamit lu am solo la daaj daa ji dafa bëri dafa bëri waa kay très bien te li ma jul mooy nit ki am loo am boo ko defee dina tax mu gën a góor góorgóorlu même bu amuloon yenn responsable ko da ngay gis nii boo ko joxee sax day gën a bàyyi xel liggéey bi foom lu bari lu muy defar daal waa defar am yoom nag defar rek nga jub defar xam nga defar moom defar la defar la daal. ndax dama gisoon. waaw ñu ne hmm. am loo leeral. Hmm. sama xel dem ci côté boobu. kon ma ne kon est-ce que du xëy na kii nga xamante ne moom moo. indi daaj bi xëy na moom moo ko gën a moom moo ko boo xool lu ci ëpp kii fente moom mooy gën a maîtriser jàng daaj bi wala mooy gën a maîtriser jàng bi hmm. kon est-ce que du maanaam dañ ni ko moo ko gën a maîtriser moo ko war a mën a jàng te pourtant nag booy xool man daaj yi ma daajul yëpp ñu ko daaj jekku nañ ko de waxuma ci qualité daaj bi de dama ni maanaam dama gis ni choix bi waaw te waaw te li ci gën a am solo mooy xama xama sagam pré enregistré la ñuy wax des fois ngay muy nekk surprise yooyu da ci am solo maanaam lii da ci am solo comme ñu naan waaye lu tax sëriñ ba daaju ko diw moo ko daaj diw moom dañ ko war a xam mais kuréel yi waruñ xam sëriñ ba rek waruñu xam Ahmadou Mouride Thioune rek xam ñeneen ñu ko daaj tey xam nañ leen ndax xamuñu leen woon loolu da ci am solo ñu xam ni kuréel kon am na yeneen jànkat yu ci nekk maanaam yooyu day am solo day feeñal ay jànkat. waaw waaw en fait empreinte daajkat bi. xam nga loolu. Hmm. daf ñu doon dal dañ doo amoon suñu kuréel gi. Hmm. daajkat bi boo xoolee du empreinte am ci njàng mi. Hmm. xam nga gars yi dañuy tàmm daajkat bi. day uuf njàng bi daaj yëpp moo koy daaj yenn daan cuune yu bëri moo koy def. day dem ba nit ñi ñoom. kuréel Serigne Ba la ñuy wax. kuréel Ablaye Diop kuréel Lamine Seye. kuréel kuréel Matar Diène. maanaam problème boobu dafa da ngay da dem ba gis ne. kuréel gi dañ koy dañ koy identifier à l'image loolu nag mënul yoon nag loolu dafa war a changer dafa war a changer léegi ni nga koy changer mooy noonu ngay def famille mm-hmm. yoo xam ne yow mën nga ko mais da nga koy joxe mm-hmm. boo ko joxee ñoo xam ne kon kuréel kat du benn nit du ñaar nit du ñett nit mm-hmm. kuréel gi bari nay jànkat yu ne ci kuréel yi yaa ngi dégg maam lool dafa am solo ci kuréel jàngale waa waa ok am na ñeneen ne ci kuréel ñoom tey boo leen daaj la woon loolu dañ koy daaj. dëgg yàlla dañu am chance boobu. waaw ñoom maanaam conservateur comité pédagogique. Mm-hmm. daanaka koo ci jël rek mën na jiitu kuréel. Mm-hmm. te loolu te loolu mm-hmm. day tax. maanaam mu rey bépp xeetu concurrence bi a mën am ci biir. da koy rey daal yooyu da koy éliminer. te Alaaji moom mu dëgg yàlla côté boobu. moom daf ci am laabiru xol. waaw. Mm-hmm. moom daaj ak ñàkk daaj la yemale xam nga loolu dafa jafe ci njiit. Mm-hmm. am ñoo xam daaj seen biir xol lañ ko dugal. <laughs> <laughs> yotaadun la ci seen. waaw bu bu kuréel gi di dugg ci bâche bi sax da ngay sentir ne kii mooy daajkat bi. day mel ni tànn yooyu waa ji di ko doxee di ko di ko waaw. démb waaw waaye moom. yëgu ko. waaw yëgul daaj bi muy daaj sax. Mm-hmm. waaw moo tax du am jafe-jafe. ngir ne la daaj bi daaj ko. waaw te loolu. te loolu yombul. dëgg la dëgg la yombul dëgg la dëgg la léegi léegi seen seen seen répertoire bi usni bi tam Euh, man man dama am pro comme usni bi ni ngeen ko jàngee. Mm-hmm. Euh, dama déglu son sëñ Matar Mbay bi. Mm-hmm. Euh, boo xoolee tàmbali bi am na foo xam ni bu fa bu fa bu fa àggee da ngay gis ne xeetu xeetum jàngu aw dëgg la dëgg la. ci biir la indi la indi. maanaam maanaam est ce que loolu loolu man est ce que war nañ ko roy parce que man exemple bi. Mm-hmm. damay dégg léegi kuréel yi dañuy jël jàngum aaw yi di ko jàng. mais jàngum aaw bu ñu koy jël maanaam comme gars yi dañu gis ne jàngum aaw kuréel mën na ko jël parce que kuréel ak jàngum aw benn la kii mooy daaj ñee aw te jàngum kuréel tam te wax nga ko am na tontu tontu nga sa bopp waa léegi benn la waa léegi benn la mm-hmm. mais xam nga am na lu lu lu lu jàngum aw di nangu mm-hmm. loo xam ne kuréel nangu ko maanaam tey jii njàngum aw mm-hmm. daajkat mën na jékki-jékki yuuxu ñee maanaam xëy na dégaame yaw yaa koy tuddee dégaame yow muy kuréel parce que yaa ngi koy àtte ci sa style mais ci style jàngum aw noonu la war a mel waaw léegi léegi yow boo ko bëggee indi ci kuréel est-ce que du jar tam nga ni bon ñun kuréel mënuñu tamit kii naan ah ñii naan wëx ci biir xaaral ma laaj la comme njàngum aw ni muy mel la léegi daaju siñ may wala bàyyi Youssou Ndaw njàng aw dañuy wax jox ñii ñu aw léegi bàyyi bu jàngee day jox ñu aw benn ci soxla te mu a ñëw te ko yàq rek <laughs> mën koo indi xam nga ñun bàyyi ma daan mbay bi bàyyi ma daan mbay bi liggéey nañ ko maam dañ jël xam kawin la ko jàng sax. waaw indi ko usni. nii boobu moom la Bichri jàng wala. Bichri jàng nañ ko waaw. mais dañ ko systématiser. waaw maag waaw waaw damaa xamul. ma xam maanaam même son bi ngeen sukkandiku wala boog dafay am ñaari son yu mu jàng. non ñun parce que ni ngeen ko jàngee. ak Bichri yéen moo yéen a gën a copie conforme par rapport laat wax na la ko sànq ñun sunum njàng léegi. rabbi karimin ba lañ ko tàmbali. bañ jàngi rabbi karim original bi histoire xëy ñëw jàng xaarim Gueye xaw ma dañ ko semence. ñun foofu lañ tàmbalee mag mu jël dañuy dem ba jeex. mooy sëñ Massamba ci lépp. mais ñun sunu ñeent yi niñ koy jàngi kenn jàngiwu ko nii fii parce que ci mag ñi indi yu ci bëri dañ koy indi mooy bi jàng ren teg ko nga xool. dégg naa ko dañ ci dañ dañ koo xóotal dañoo dañoo dañoo dañoo indi lu bëri. yaa ngi dégg sindi di sëñ Moussa Diop bi noonu. usni bi dañ ko am yoom dañ ko systématiser mhm. mooy riim yooyu ngay dégg suuf ah, paa bi def ko mhm. waaye léegi paa bi tey bu dekki woon nga tegal ko usni bi tegal tegal kawin bi teg usni bi mais day daanu jël daan gone yi jàmbaar lañ ak samp bi ak samp bi samp bi ñoo ko systématiser mais tey jii suñ suñ Cheikh Gueye may mi daal di bàyyi ndaw bi histoire xëy jàngoon 97 suñ Cheikh Gueye maa toog joxaane toog suñ Cheikh Gueye ni ma ni mën man ak joxaane ni ñu minaadi boobu de mos bu ma mosaan dégg sama yaram bi day daw ndax fi ngeen ko teg yaa ngi dégg li ma fi ko teg kon xam nga yow mag ñi tey bu ñu dekkoon gis tout tànk yi jàng day daal naan Sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw. mi daal sëñ ak yarudu ya tegal yarudu bi léegi nga dégg ko tegal yarudu bi yow fekkee jànkan nga. <laughs> nga xam ne lii. xam ni sonn nañ ci bayit par bayit lañ ko topp. waaw. nga xam lii sonn nañ léegi bu dee ci bu dee ci bu dee ci roy copie conforme boobu. Hmm. est-ce que yenul maanaam man mën naa d'accord ni xëy na bu dee ci daaj dëbbe. wala daaju kenn mag rajas. Hmm. d'accord naa nga roy roy copie conforme fu mag bi bëroo nga bëru. Hmm. fu mag bi riimee nga riim fu mag nga samp. waaye est-ce que daaju waa Samba yi nga xamante ne ñooy lu demee ni léegi da gis ku roy soixante-dix-huit fu mag mi bëroo nga bëgg bëru foofu fu mag mi riimee nga riim te mag ñi. programme ñu woon programme ñu woon bëru wala pour nekkul comme daal. waaw léegi nag bi nga xam te ne. mais parce que am fa xëy foofu mooy ah, da nga gis kuréel daaj Kër hmm. wala daaru moo xam ci moyen bu wala ci beneen daaj maanaam tolluwaay bi ñuy toll foofu daajkat bi rëccale daaj daaj bi kawe. ñu dem ci bayit sàngam mag mi da ko gi da koo foofu ñu ne ala kulli alin ba dañ koy samp gis naa ko fi kuréel yu mag def ko hmm. ba ngay gis diw di jaar nii diw di jaar nii est loolu est loolu tam maanaam jar na ko daal parce que mag ñi programme wuñ ni fii dañ koy bëru programme ni fii dañ koy sam waaye tamit xam nga li ci am solo la mooy roy gi ngay jéem a roy mag ñi maanaam loolu rek moo ci am solo waaye neeñ kuréelkat yi jàngatuñ mag ñi gis am na kuréel yoo xam ñi ngi jéem a jàng mag ñi loolu moo ci am solo nag waa loolu moo ci am solo parce que waaw parce que tamit kuréel bi jàng wax ma sàmm képp conforme fu ñu boroom boroo fu ñu sampee mu sàmm mii góor góor góorgóorlu pour jàng mag ñi mais est-ce que du laaj maanaam bu fekkee ni. Hmm. parce que comme ni ngay wax maître de cœur day maanaam day jouer ci jàng. Hmm. est-ce que du laaj bu fekkee ni dafa toll tolluwaay boobu te ne xëy na daaj bi rëcc na ko mu kawe. loolu moom jarul sàmm moom mën ngaa wàcc. parce que léeg dama damay gis yenn kuréel yoom dañuy daaj. ñu hmm. demee ni waxul jaar xaq wala ñu daaj ko xam dal maanaam ñu dem ba xilmi daaj bi kawe ñu waaye man nag nga baal waaye damaa jàpp kuréel bu mënul samp wajur laay xam dal war ngeen mën a bàyyi. exemple bàyyi jàng non non gis nga. ci tolluwaay bu ngeen mënul bu ngeen ko gis nga mooy li wax sànq fi ma nii kuréel yu bëri su Youssou Ndour rey nañ ko duñ ko jàng ndax samp dañ naan dafa metti mhm. kuréel moom boo demee ba mu mun leen a samp mhm. bàyyi leen ngeen teg seen i téere ngeen nekk ngeen ngeen di nekk di donc di diglu. parce que li ma la wax nii ci. parce que wajal laay xam ne lu mu rëcc rëcc rëcc rëcc sam bi wóor lañ koo sëgg. ndax kenn du daan naan waaj. exemple laa wax ko dégg fenn. kuréel mënul ñàkk ay kamikaze yoo xam ne sëñ bi ciy teg seen bakkan. te jàng nag des fois loolu da ciy neex. xatraayu gën a neex moo la gën a tax xatraayu. xatraay day neex jàng. jaayante du mu mu mais kuréel na daan nañ jàng Lamine Seye ni nii événement yi. Lamine Seye benn xas da bu ñuy sacrifier bu ñu ko jàng mi daal suñu ndaw lañu sacrifier. voilà gars yi gars yi waaw. dëgg la ay samp daf ko ay xaaj. daf ko xaaj waaw. ndax daw coono ak daw métit reetaan boobu ngay wax nag ak ak ak foo moomu ci kuréel yooyu ñoo ko waral njàng mu nooy kuréel gu am gaa yi dañuy tala reetaan di fo waaye njàng mu góor a dëgg yaakaar naa di nga tal leneen loolul fo ah mais Lamine Seye daan nañ kuréel la daan njàng mu ni nii gars yi ni ko nii <laughs> ah, mais day forcé gis nga xaaj boobu ñuy xaaj mu leen lii amul àdduna loolu mooy njàngum kuréel. bu ñu wàccee bu ñu wàccee nga leer na waaw nit nga bëgg nga bëgg parce que xamul foofu àdduna jeex na fa ndax ku nekk yaay xool noo ci génnee léegi na loolu mooy njàngum kuréel. mais bu nooyee rek njàng bu nooyee. waaye waaye nag damay daje man li ma seetlu ci kuréel yi li ma seetlu ci kuréel léegi mooy. jàng bi métteetul de dañuy wax ne ñoom jàng métteetul da nga ko teg ron ron bu jàppandi ñuy tiim jàng bi di way. mais nag loolu waratul nekk ay yuuxu rek. Eh. noo man ngay yuuxu di way. wuy ma mais man ngay yuuxu di doxal. man ngay yuuxu di way. maanaam ci xàll ci xàll la. gis nga lool loolu loolu ay waxu mu tegul fenn te ko ci suuf di way moo gën njàng mi tiim la déedéet njàng mi yow mën na la tiim ngay way di maîtrise la rek. loo ko tàmbalee tàmm. mais léegi c'est ñu gëm ñun kuréelkat yi xam ne seen noosu fa foo mu ñëw foofu. waaw dana ñàng da koy tiim. fekk moom baatam moo tàmbaleem ay jafe-jafe. Mhm. wala ko fa ker te yëgu. ok wala amatul dooley jàng. nga xam ni moom. daf ko natt ci boppam. comme que mu ni mu na ni mënatul dem fenn fii. li faw muy jéem a sol ci xelu nit ñi ne leen ñàng dëgg góor tiim di ko di ko noggatu di ko di ko way fekk maanaam moom ci boppam la ko natt. kurékat saa boo demee bay daw daaj rek. amu niveau. sa niveau des na parce que loolu ngay daw da nga ko war a liggéey da ko war a liggéey. ba man ko parce que loolu moo tax ñu naan répétition. tey ji yow li la gën a të. ba mu war a fexe ba man ko bu la kaw tëwee danga war a fexe ba man kaw. kuréel kuréel da nga war di hivernal comme équipe bi ni ñuy hivernale wala nañ sélectionné kuréel gi. moo baaxul maanaam am yoo xam ne sëñ bi hmm. xaw a dee. Hmm. Hmm. man dama naan toog ci ginnaaw ñun ñu daan jàng tout temps gi jox kuréel euh, buñ paree ci ginnaaw laay toog di leen seetal mais gis nga gaa yi seenum njàng du du laal suuf. ba fajar nongu lay def ca kaw. te bëriwuñ ay dix huit personnes lay mat quinze personnes daawul sedd. eh daawul sedd. man même Daaru Xuddoos bii ngis nii Daaru Xuddoos. tubaab njàng yombut. tey man ngay gis ñuy jàng mais kuréel lëmb tey boo fa duggoon di jàng. Mhm. bu fekkee yow njàng mi dafa métti. ah mu ne du ma bàyyi ma fen dafa métti. kuréel yu mag yëpp. kuréel yu mag yi jàngee. waaw kuréel mag yi benn mois binaat yi boo xam ne moom sax ah? man dama dama ne xanaa déedéet mag yi jàngee niveau waa début bi dañoo mujj ñu ci bëri noppi bàyyi koog njàng kuréel mag yi jàngee niveau yëpp ah buñ paree gars yi dañuy jàmbat ay der biir sama deru biir day mett sama nangam parce que loolu mooy jàng jàng moom normalement sax bu taree dëgg kenn waru faa tal nekk naan da ngay reek da ngay naan yow noo fexee ba njàng mi jeex ngay wut Baye Mbacké Fall waxoon na <laughs> boo jàngee boo noppee sa juróom-ñaari cër war naa metti waaw niveau daal niveau. tubarkalla gaa yi dañoo wàcc baar bi léegi. sëñ Youssou Ndaw nag lañ ci gën a yab daanaka dañ dañuy wax ko def noo xam ne bi te sëñ Youssou koy jàng magal na gis fa mu ko teg. métti léegi xam naa euh, macha li ñuy wax noonu loolu nag leer na ci li ñu doon wax sànq mooy orientation daara ji ci wàllum njàng. Hmm. ak ci wàllum temb day mel ni moom fi mu ne leer na ne. maanaam indi nañu rupture ci peut-être vision bi gaa yi amoon ci ne. Mm-hmm. comme ci wàllu ci wàllu jàng. Mm-hmm. ak ci wàllu systématisation. Mm-hmm. ak wàll boobu yëpp day mel ni leer na loolu kon mooy expliquer répertoire bi à chaque année li ngeen di indi. chaque mu mel ne day dëppoo yéen ak orientation bi ngeen am. loolu nag ku ko xamul. peut-être comme comme li li li kii wax rek li sëñ laat wax en fait ci doon noonu la mel ci njàng en fait njàng ku ci nekk conception bi nga am ci njàng kuréel boo gis noonu nga koy àtte ndax yow da ngay jàpp ne yow li nga li nga jàpp mooy l'idéal ku ko defut kooku moom dafa war a rangé wu <laughs> waaw donc léegi nag te dañu toll fi mu ne foo xam ne faw ñu xam kuréel bu ci nekk lan mooy ay mm-hmm. gis-gis ku ci nekk di xool da ngay dégg loo xam ne li li ngeen wax exemple ci wàllu copie conforme ak mm-hmm. ak systématisation orientation boo xam ni kuréel war da ko war a am xool lii laa daan def naa amélioré wu ci nàngam wàllu ron dama ci amoon problème naa ci liggéey xool xool xool li la tële nga liggéey ko nga liggéey ko waaw loolu loolu kuréel bu nekk da nga war di ko def li nga mënul nga liggéey ko ba man ko hmm. léegi bon xam naa balaa may ñëw ci rubrique santé seen seen seen euh, son prêt ñaata la huit son la huit la huit huit son bëriwul loo xamante ñu koy def huit son hmm. parce que nit ki bu fekkee da nga génne prêt enregistré hmm. nga jox ko clé par exemple nga wecc ko kele bi daal mu teg ko ci oto xanaa lu mu warul diglu ñaari xas dërëg. affaire affaire yi jeex. mel ni singal yooyu. ak hmm. maanaam contexte maanaam contexte Covid bi. maanaam gars yi kuréel yi nga am dañu amoon jafe-jafe ñu répété. ju ci bëri ci ay ay ay whatsapp yi lañ daan nekk di kii. loolu moom xanaa da ngeen doon laqatu couvre feu yi di génn di di répété. wala pourtant laqatuwoon euh, usni bi tàmbali nañ ko avant couvre feu bi. liñ ci dolli nii sax après. après couvre-feu bi lañ ko ci dolli Ousseynou moom pare woon nañ ci. mais benn li ñu ah, <laughs> ci at lañ koy répété. maam ci programme daal. déedéet ci gàmmu rek. tàmbali tàmbali nañ li a jàng ah, waaye nag waaye waaye waaye li nga laaj waaye li nga laaj dafa am solo. parce que liñ ci moyen bu bi après confinement bi dañ ko répété. Mm-hmm. sindi di bi tàmbali woon nañ ko may. après confinement bi dañ koo arrêté dañ ko arrêté waat mi daal di bàyyi Youssou Ndour bi après confinement bi la usni bi donc asiru bi après confinement bi la madal xabiru bi après waaw madal xabiru bi après yu bari de xanaa kon avance bi ñu jël wajoxtu bi kun kaati man parce que daaj bu ñu xaaroon ba confinement bi lépp dinañ lu ci bëri ay daaju mokkal la te it ma gis ni maanaam hmm. daaju mokkal maam ñaar ba ñett ba ñett te kuréel yu mag yu ba yu ma gis yu bëri daaju ma xol ay ñaar lañ ciy génne maximum ñett wala benn wala ñaar. parce que kuréel bëri li laan wax dañuy bàyyi ba màggal des trois mois. ñu bëgg daje. ñu bëgg a répété. mais ñun nag wax dëgg yàlla dañuy répété. ñoom ñaari jours séance comme ñu ko jëwriñ waxoon sànq. mercredi ak dimanche. jeudi ñu guddaa ji année bi yëpp dañ koy répété. moo dëgg yàlla. loolu nag te avant répétition comité pédagogique day dugg ci biir. néeg bi tënk génnee ànd ak kuréel gi wéyal. tënk boobu ñuy tënk nag mooy tax yow boo ñëwee rek day yomb ci gaa yi coono la daal coono coono coono daal moom xam naa ni moom kuréel moom coono kese la dafa tar boo boo noflaayee tuuti rek boo noflaayee tuuti mu feeñ mu feeñ léegi xam naa dañuy déglu euh, interview bu ñu amoon ak Fallou Niang hmm. euh, ñuy jaare waale bu baax euh, professeur Issa Ndiaye moom jokkoon nañ ci émission bi hmm. ba daanaka am na interview bu ñu war a def après sax hmm. moo ñu boole ak professeur Fallou Niang moom ñu xamante woon ak moom. Hmm. Euh, ñu ko doon laaj lan mooy ORL ndax dañuy faral di dégg ñu naan ORL ORL ORL. dañuy faral di dégg itam yéen jànkat yi ñu naan diw dafa am dem ba ci biir mu am jafe-jafe baat diw moo daan daaj kuréel sàngam dafa dem ba ci biir baat bi am hmm. jafe-jafe. bu problème yooyu amee kan moo koy faj ndax ñun ñëpp xam nañ ne médecins yi dañu am spécialisation. Hmm. bu ko am wàllu problème mu cœur da ngay dem ci cardiologue bi problème mu gis da dem ci ophtalmologue bi yooyu jafe-jafe yooyu ku ko am ci kan ngay dem ci lañ wax ne kon kooku spécialiste ORL la tudd moom moom laaj nañ ko lan mooy ORL euh, laajaale ko tam leeral tudd waxaale euh, corde vocale yi bu ñu waxee ci corde vocal yi laajaale nañ ko lan mooy corde vocale ak yooyu noonu yëpp xam naa ñu ñu teewlu ko. Euh, asalaamaaleykum. mbokk ñu ngi leen siyaar baax a baax man la docteur Fallou Niang interne des hôpitaux service d'ORL ak chirurgie cervico-faciale donc ñu ngi ànd ak vraiment mbégte di participer si si émission bi. te it euh, di ànd seeg yéen ci lépp loo xamante ni ci wàllum wér yaram la rawatina wàllum ORL. ko pour tàmbali. Euh, ORL mu benn spécialité la benn bànqaas si wàllu médecine. boo xamante ni comme ni ko turam luyee moom mooy oto rhino laryngologie donc mën nañ ni ñetti fànn ñoo si ne muy otologie muy lépp luy feebar bu jëm si wàllu nopp rhinologie muy feebar bu jëm si wàllu bakkan ak laryngologie mooy lépp lu jëm si wàllu baat donc mën naa ni ORL moom mooy médecin bi nga xamante ne moom mooy yor lépp loo xamante feebar bu ne si nopp la ak bu nekk si si bakkan bi ak boo xamante ne si baat bi la euh, bu ñu waxee ORL tamit rawat na liñ mujj wax muy wàllu baat wax loo xamante ni euh, euh, dafa am lu mu àndal muy wax bi te wax bi li ko waral dafa am loo xamante moom la ñaan corde vocale maanaam moom mooy ñaareelu laaj bi donc corde vocale yi ay lii lañu ay ay organe lañu ay xeetu lu mel ni ay corde yoo xamante ne dafa nekk ci ci biir baat bi euh, ubbeeku te ñaar yooyu noonu mën naa andi moom moo yor wax bi su nit ki di wax ñaari corde vocale yooyu ni muy yëngoo di di vibrer loolu mooy génne wax bi moom moo tax nit ñi euh, mën a wax te aussi moom moo yoraale nooy bi ndax ngelaw li foofu lay jaaraale donc on a une corde ci ci suñu suñu tënkee mooy organe mooy cër bi nga xamante ni moom mooy yor dëgg-dëgg wàllu wax bi day cër boo xamante ni day mel ni ñaari e, e, corde yu yu taxaloo yu nekk si biir baat bi moom mooy tax ngelaw li di jàll nit ki mën a nooyi waaye tamit e, booy wax mën naa ne ñaari corde yooyu ñoom ñooy vibrer di génne son bi mu mën a doon wax donc feebar yëpp boo xamante ni dafa dafa laal corde vocal yooyu noonu li muy njëkk a manifesté woo mooy jafe-jafe wax di ñaan le plus souvent dysphonie mooy saat baat buy dee wala nit ki baat bi du amati doole bu bëggee wax yenn waxi wala muy yëg ni euh, wax bi demeetul noonu. Euh, léegi nag li nga xamante ne moom mooy euh, link bi am si diggante ñett yooyu yëpp muy corde vocale yi di bakkan yi ak aussi di di nopp yi maanaam ñett yooyu moom la ORL bi di xool te soo xoolee ñett yooyu yëpp dañoo dañoo communiquer muy baat bi communiqué na ak nopp bi. ak li ñu naan trompe de stage mais en même temps dafa yéegaale baat bi aussi boo yéegee ba si kaw parce que li ñu bi mooy euh, li nekk ci ci ginnaaw bakkan yi foofu aussi da ngay gis ni dafa communiquer wàccaale ba ba si baat bi donc mën naa ne ay organe la yoo xamante ni benn bu si ne am na njëriñ bu boo xamante ni moom kenn na table benn bu nekk communiquer na ak moroomam communication boo xamante ni moo tax feebar bu laal benn bi rek muy feebaru baat di feebaru bakkan walla nopp bu si ne rek mën na retentir si si beneen organ léegi nag yooyu yëpp yi nga xamante ne ñun euh, médecin bi euh, géré mën naa coordination boobu yëpp ci ci ñetti éléments yooyu moom mooy médecin ORL bi. laaj nga ma laaj bu am solo muy par rapport ak cordes vocales yi. lan lan lay bañ euh, boo xoolee code vocales yi. am na lu bëri yoo xamante ne soit muy wàllu ay ay ay toxique wala ay wàllu yenn habitude de vie wala yoo xamante ne souvent. également ay profession qui son à risque pour mu am benn retentissement si code vocal yi euh, li nga xamante ni moom moo si gën a bon moom te ñëpp xam ko mooy tabac képp koo xamante ni da ngay tux cigarette wala muy yow yaay tux wala ngay jige fu ñuy tuxee loolu moom lu lu bon a bon a bon si corde vocale la te mën na dem sa ba indil la cancer euh, corde vocale yi muy cancer du larynx ku wax euh, tux cigarette aussi di nga wax naan alcool alcool bi aussi ci facteur de mauvais pronostic la yi nga xamante ni facteur de risque réel la de de la corde vocale Euh, am na yeneen yuñ mën a citer muy intoxication yi que ça soit euh, aux hydrocarbures wala yenn euh, atmosphère yi nga xamante ne dafa bëri poussière trop bëri ay déchets saxaar su bëri yooyu yëpp bañ na sax ba soo xoolee jigéen ñi nga xamante ne dañoo am ay ay ñaan cancer du larynx cancer corde vocale yi ñu si ëpp ñu ngi njort ni am na suñu bëri ñoom dañuy dañ daan togg ay mat wala daan jege ay saxaar su bëri loolu si ñu jàpp nañ si la bokk. Euh, am na yeneen feebar yoo xamante ne comme lu ñaar naan reflux euh, gastro-œsophagien comme nit ñi nga xam dañuy xer ñeeñee lu bëri lekk bi di yéegaat loolu aussi mën na irriter cordes vocales yi lu bëri euh, te yooyu lekk yu koy waral li si bëri mooy lekk yi nii nii yu gras yi wala yi nga xam dañu bëri lekk bu bëri gerteeg yooyu donc daal ci bëri na nag yeneen yoo xamante ne mën na li ñu waxee aussi profession surtout mën naa ni profession yi nga xam ne dañuy utiliser seen voix ça soit muy chanteur Euh, muy les enseignants aussi les avocats ak yeneen profession yu mel noonu journalistes yi donc même ci am na jàngat bu am récemment euh, France bu wane ni presque téeméeri enseignants yoo jël mën naa ni fanweer yi ak ñeent yi am nañu feebar corde vocal soit te te seen profession moom moo leen jox risque boobu soit ay nodule la wala yeneen yeneen yeneen di donc profession yi aussi ay facteurs de risque majeur dañu par rapport ak feebaru corde vocale mais aussi chanteurs yi aussi ils sont pas exclus de même que xam ni jàng jàngkat yeeg yooyu yëpp si lañ bokk. donc en dehors de profession boobu daal yi nga xamante ni moom moo si gën a gën bon tañ gën ko identifier mooy surtout alcool bi di tabac wala alcool tabac bu ñu boole mais également euh, yenn intoxication yi su mel ni yenn saxaar yi wala yenn hydrocarbures yi. donc xam naa ne fii lañ fi yamande pour le moment ba suñ ci amaatee yeneen laaj ñu fas yéene ànd seeg yéen bokk ak yéen li nga xamante ne moom lañ si xam jërë ngeen jëf. defe naa ñu ñoo ko déggandoo kii nag rubrique santé bi ay parti la yu bari bari bari mais xam naa dinañ def beneen boo xam ne thème santé rek bu ñu wax ci daaj ak yooyu. dañuy ci wàllu santé wàllu voie wàllu li nga doon wax léegi hémorroïde hmm. parce que toogaay yi da gis kuréel guy ndamoo ba ñu demee kër seen diw jàng nañ fa 9 heures de temps. neuf de temps bi bi sollu ci kuréel gi bis boobu la ñu fekk na bis boobu la leen sol tawat ji. dëgg la hémorroïde bis boobu lañ. yooyu yëpp daf ciy am kon léegi jàngat bi xam naa ku ci nekk dañuy def tour euh, tour de table ku nekk def commentaire ci lii mu dégg ci wàllu ORL wàllu baat nga xam ni jàngat yu bari jàpp nañ ne bisimilah barke borom Touba daal moom mooy faj affaire yi boo yuuxoo fu mu toll lu baax nag yéen ña sëñ Ahmadou Ba. naa mu wër waaw yaakaar naa ni dafa di jàngat boo xam ne ñëpp war nañ ci bàyyi xel. Mm. Euh, xëy na du xaj ci benn jotaay. Mm. waaye li ci ëpp solo rek mooy ñu xam ne wàllu kër docteur mënta ñàkk ci euh, wàll wi ñu ne mm-hmm. ndax di toog ay heure yu jàng mm-hmm. moom ba pare boole ko di di yuuxu yuuxu yu tar mm-hmm. moom yaakaar naa ni ko ku dul tàggatu ba ci wàllu sport tamit. Mhm. impact bi muy def ci ci ci ci ci yooyu yooyu tamit war naa am mhm. taxaw xam naa yooyu yëpp nag. Mhm. ay pàcc la yu ñëw ca kanam. waaye li ëpp solo mooy ñu bàyyi xel kër docteur bàyyi xel suñuy wér-gu-yaram. ñun jànkat yi. waaw ah, jërëjëf sëñ Bamba xam naa ni loolu moom day dañuy tënk rek waaye que ni maanaam loolu luñ ci dugal rek mooy que ni Bamba jot naa wax kon kuréelkat bi war na saa su ne maanaam di bàyyi xel ci alimentation di bàyyi xel ci maanaam dëgg-dëgg maanaam nu muy jàngee. Mm. ak tamit xeetu maanaam bokk kuréel yu bari yoo xamante ne maanaam gaamu ñuy jàngee du bokk léeg-léeg nga dem kuréel bi mu jàng ne mhm. léeg kuréel bi ñu jànge nii mhm. loolu day impacté baat ndaxte ndaxte ndaxte am na jàngkat yu bari ñoom te ne xaw na yàq seen baat ndax di jàng ñaari gaam yoom ne bokkul loolu sa baat mun na ko bañ a kii loolu tam maam di ko bàyyi xel baax a lu deme ni ay lu yu sedd yeeg yooyu lu demee ndox yu sedd yeeg yooyu mun na mun na rey code vocaux yi war a mun na tax tam sa jàng des fois ngay am ay lor wala yeneen ak yeneen yooyu yëpp xam naa comme li nga wax rek yeneen émission yi nga xam te ne moom mooy jëm ci ci tey waaw mooy jëm ci wàllu santé moom dinañ ko gën a mën a yaatal jërëjëf waaw euh, su euh, su suñ yuus ba daanaka suñ Fallou li ñu ci wax docteur Fallou dafa am solo mm-hmm. ndax li ma ci mën a junj rek mm-hmm. muy maanaam appareil la mm-hmm. ñu koy wax appareil phonatoire nga xam ni abdomen la la mooy biir euh, thorax dënn larynx moom la regroupé bu ci ne day intervenir. Mm-hmm. nga xam ne ñett aspect yëpp dafa am ñetti aspect yuy ñëw. Mm-hmm. muy sommeil mobilité alimentation. Mm-hmm. nga xam ne benn bu ci ne. que lay gën a yëngu moo lay gën a baat baax. këlee gën a bàyyi xel hygiène de vie ci lekkam alimentation moo lay gën a baax baax. baat baax ki nga xam ni dina dallu na mu waree moo lay gën a baat baax. moo lay gën a euh, baax baat nga xam ni. yooyu yëpp dafa nekk aspect yu important yoo xam dafa jara taxaw seetlu mhm. te xam ne gaa ñi ñàngum xas di lépp ci baatin rek lañ ko teg mhm. baatin moom du fi jóg mhm. day neex ba ilaa yoomi diin waaye boo négligé saayir si sa baat bu buy kale dalay bett su ko defee nga naan boo defoon naa danga may liggéey dañ ma nanga ma et sa amul lu fekk yow yaa sàggan sa càggante goo xam ni wala xëy na sax du sàggan da euh, jàngoro am na jàngoro ju la dab joo xam ni xëy na boo daan boo daan jël say matukaay door nga gis xëy na eh, yenn xeetu tawat yu nga xam ni ñàkk ñàkk xaar ba li nga lekk rees nga soog a lekkaat moo la koy jox. Mm. te doo ci bàyyi xel. Mm. mooy def ay reflux gastrique ak yu kenn xamul yoo xam ne bu yàggee. Eh, sa sa corde yi day dem ba ba ba bouché wala moo am irritation yoo xam ni. Mm. daanaka moo la indi jafe-jafe te doo ci bàyyi xel. waaw loolu dafa jar a taxaw seetlu dimbali suñu mbokk jànkat yi. loolu moom thème la spécial boo xam ne xam naa ni sëñ Abdoulaye. sëñ Abdoulaye daan nañu xam wàcc na ci moom xam-xam wàcc na ci wàllu boobu. sëñ Ahmadou. waaw sëñ sëñ Youssou. di Cheikh Abdoul Ahad doon wax ci euh, njàngum kuréel. ndax euh, kuréel moom. dafa doon lu lu sell lu lu loo xam ne sëñ bi la mbirum sëñ bi la. waaw ndax comme liñ laaj dafa am condition yoo war a remplir. pour mën a nekk jàngkat mm-hmm. waaw ci te lii aspect santé bi ci la bokk mm-hmm, mm-hmm. waaw ndax euh, man sama expérience bopp lay wax 2014 maa ngi ci waxtaan ak sëñ Youssou euh, def naa opération bi bu ñu bu ñu tuddee yi la tudd maanaam amygdale ay organes yu nekk ci baat la ñaar lay nekk ku ci ne am nga ko léegi nag euh, di di nuyu professeur Euh, Issa ORL e waaw mm-hmm. ah, di ku baax mm-hmm. di taalibe sëñ Saliou mm-hmm. moom di muri Sadix ndax euh, man bi may njëkk dugg ci cabinet photo sëñ Saliou laa fa gis mu teg euh, kii kaamil alxuraan ak xasaayit waaw da koy gis xam ni ku baax ko boo gisee xam ko ndax day feeñ ci jëmmam ndeysaan ba ma ñëwee jour boobu ndax moom nit moom boo nekkee ci mbir xëy suba am lu la dik lu la lu la lu la dikkee te musuloo dal ndax àggoon naa foo xamee ni euh, comme alaaj mi ngi nii ñu buñ jëlee xasida euh, buñ tàmbalee jës bu xabu bu njëkk bi alhamdulilah xaqil mubin balaa may ñëwaat maa jami lay ñëwaat waaw maanaam da mën wax doo mën a wax maanaam doo amati souffle. Hmm. te bi ma commencé jaaxle sax mooy bi ma àggee nga xamee ni euh, waxtu julli yi ngay biiral ci kaw. doo xamee ni doo mën a wax. maanaam bu ma tàmbalee Fatiha normal bu fekkee ni nit kiy julli teewlu jàng ko ay deux minutes pour trois minutes ma ni ma foo ay dix minutes. waaw daa xam ne lii moom. lii moom nekkatul. Hmm. loo xam ne da ngay toog xaar wala di njort. da nga jug sa bopp dem. Hmm. kër docteur nga xool ko. Hmm. te wax dëgg bi ma ñëwee ci moom. dala sama xel na ma lii dan ngay dan ngay tàmbali def traitement. léegi bi mu xoolee mu laaj ma ndax am nga ay antécédents ay sinusite comme li ko sëñ Youssou wax sànq. Hmm. waxee sànq ndax yooyu jànk yu bëri am na ko. waaw sinusite. ak problème respiratoire. waaw te dafa am solo maanaam lii dafa nekk loo xam man dafa ma ñor. ma saa su yàgg na yàgg naa ci waxtaan ak Ahmadou Bamba mi ak seen mm-hmm. yuusu mm-hmm. loolu dafa war mm-hmm. ñu dimbale suñu mbokk taal yëngu ci kuréel ndax sa wér-gu-yaram mooy lépp te nit daf naa li nga gën a bëgg gën ko fonk ñaan nga yàgg ci di ci yëngu ay at yi at waaw nga xamee ni ba keroogee rek yàlla na yéex waaw rawatina xas day nga xam ne day mooy sëriñ bi léegi euh, bi mu commencé traitement bi euh, mu ni ma premier jour dafa xool ami daal yi dafa tiit na lii dafa infecté parce que rouge te rouge moom du du couleur couleur normale bi. Mm. loolu lii moom foo ñu jug ci waaw lii mooy amygda amygdalectomie mooy da nga koy dindi. Hmm? loolu daal mooy solution bi dama désormais da ngay jël euh, foog nga arrêté lépp luy kuréel ak ak lu nuru moom ay wax yu bëre <laughs> seen naa yu suñu si waxtaan. Mm. waaw dëggal trois mois nga laa laa lay bindal loo xam ne repos ngay def. Hmm. waaw ba keroogee diggante bi. ci lan programme opération bi yëpp mu doon ku baax di taalibe Sëñ Tuubaa mm-hmm. te moom lu tax mu mu mën ma conseiller ci lu bëri parce que moom comme xam na liy kuréel mm-hmm. ndax sëñ Yuusu mi ngi nii mm-hmm. ndax euh, isbitaar yi ñoom seen kuréel yàgg nañ dem chaque année jàng yi muy amal sëñ Saliou cant waaw moom gëmul ku du sëñ Saliou bu baax la ci wàllam ci euh, di ku am yéene tamit ci la ma xelalee ne ma ba ci kuréel yëpp ndax ñu ma kuréel moom képp ku koy def maanaam jànkat da ngay jàpp ne profession la comme menuisier beeg maçon bi euh, ouvrier beeg lépp kon dafa war ngeen am docteur boo xam ne day suivre. Hmm. kuréel bu ci ne war na am docteur nga xamee ni événement wala de temps en temps ngeen dem consultation wala mu ñëw xool kuréel gi yëpp parce que lii parce que nee li ngeen def sensible. Hmm. nee ci la ma leeral comme li sa news wax sànq. Hmm. waaw kon ne xam ne Sëñ Tuubaa mooy zaa nafxin bi am na loo xam ne wàllum wàllum saayir la wàllum docteur moo ko féetewu mm-hmm. mm-hmm. ndax fi mu ne tey ku amoon bëñ bu métti doo dem ci kii kuy defar daal te docteur nga jëm nan waxoon na dëgg waaw da nga dem ci dentiste bi mu xool la sa bëñ mm-hmm. waaw amul dewal ma ñëw kon nag loo xamee ne yow def naa moom dangay ngay sàkku ngërëma sëriñ bi muy wàllum kuréel yëngu yëngu yëngu ci xasida ci la ma leeral ne kuréel bu ci ne war naa médecin buy topp kuréel gi yëpp ñuy dem di xool seen wérgu yaram rawatina baat hmm. ndax organe la comme ni ko sëñ Abdoulaye waxee hmm. waaw ci ci la moom ci la ma leeral sax ndax ne ma même sax ndax moom da koy suivre comme moom taalibe sëñ Tuubaa la hmm. day topp kuréel yi ak gars yi mën naa ñëw ñoom seen yuusu ci cant yi mu daan amal sëñ Sall nee ma sax ci biir njàng boo jàngee ba sa baat tàng waroo jël café naan ko lii la lii la mu njëkk wax. ay ndox ak yi waaw ah, mu ni xel moo fi mu gesu. waaw ah, boo tàmbali jàng fa nga newoon fa la lay dellu. foo nga xaar ba gis na nag boo demee sax am na ñum jik ma ne boo demee am na ñum jik waaye daa waaye daa bëriwul dañoo dem ba tàmm seen bopp. très bien. mais du ñëpp naan ndox bu sedd doo nga jàng naan boo ko naan waaw nii noonu si cas boobu nag ci la ma hmm. loolu li gën hmm. nit ki bu àggee foofu hmm. na jël ay mel ni ay tàngal. Mhm. ay stimulant lay nekk. Mhm. wala tuuti ndox rek ndox bu mu bëri tuuti mhm. ndox. bu ko defee yow nga amaat suuf mën a kii xam loolu moom spécialiste moo nga xam. léegi amaana comme ni sëñ Youssou wax doo ko doon laabee kenn xamul. leen ah café café sëñ Touba gi ah amul benn lor <laughs> amul nangam mais xamul loolu sëñ bi moom wàllum baatin bi sëñ bi la sëñ bi la. loolu moom la xasida yi moom. boroom moom moo ngay saytul boppam. waaye am na loo xam ne ñun ñun duñ sëñ bi. waaw déet. pour yëf moom foo mu leer dunu sëriñ <laughs> waaw waaw dunu sëriñ bi waaye am yow mi yow mi nag yow mi yëngu suñ tuwaa dimbale la boole la ci yëkkati xasida yi yow nag yaa war a fexe ba sàmm li nga xam ne yow mooy tax nga yëkkati xasida yi mhm. waaw te loolu nag lu mu laaj mooy nga saa nga xool sa yaram waaw di ko saytu gisee ak ñoo xam ñoom màcc nan am nañ yéene ci lool nga di jege mhm. bu defee saa su ne suñu dina la dina la dina la teg loxo mhm. waaw ba yow li nga am yéene ci ci ci moom ci xasida yi saa su ne moom mu lay dimbali ba nga àgg foofu waaw te maanaam xajul fii laa dëgg la te dafa laaj. te loolu dama ci sawar lool yàgg naa ko wax. loolu te loolu loolu tamit. waaw man buñ koy def moom. waaw yàgg nañ ci waxtaan. boo am yeneen projet sax yoo xam ni loolu lu ma ñor parallèle ak ak ak bi. waaw incha allah mais thème boobu tam buñ koy def moom incha allah. comme ñu dund exemple boobu day am mm-hmm. solo man mii. Euh, ku ñuy wax docteur Ndeye Awa Thioy. 2011 mm-hmm. la woon boobu. l'arrêt chute chronique laa amoon. Hmm. mais man ci laa découvrir yooyu. dama dem nasofibroscopie lañ ma defal. Hmm. raakol bu gudd. dugal ko ci bakkan bi mu wàcc. ñu xool affaire bu doy waar di xool xool ne ma yow sa corde yi. Hmm. nooy def ma ne ko damay jàng. dama jàng yow sa corde yi am doole yi tu n'as pas besoin de crier. doo wax ci suuf ma ne ko non ñun ni ñuy jàngee. amul wax ci suuf noonu la ñu war a def. dëgg bon jàng bi moom fi mu ne xamal ne arrêté na moom. fii ba deux mois moom mooy loolu amul jàng. ordonnance bi ma njëkk a bindal 43000 nga xam. temps boobu maa ngi jàng. loolu ba ma ñëwee jox ordonnance bi sama sama sama sama samay parent dañ ne ma. Mhm. léegi yow sa guddi nga tàggoo yaa ngi dem daayira. Mhm. ba pare eh, dem nekk ci kii du yuuxu. Mhm. doo xool sa bopp léegi yaa ngi commencé gis nga lii boo ko toppee. <laughs> sam comme sam papa dafa mën a tooñ ci yooyu mu ne ma continuer xam nga yow fanatique nga. xam nga je vais te je vais te dire la suite maanaam da continuer yow nii nii li ñu lay wax nii yëpp doo ko dégg da naan sëñ bi ah da ngay dem continuer après cancer de la gorge ngay am ah, boo ko amee boo paree dee nag jàkkaarloog fële sëñ bi nag foofu moom da ngay yuuxu carrément amul médecin mm-hmm. ni nga bëgg a yuuxoo ngay yuuxu mm-hmm. ah, léegi daal man li ma ci dolli mooy mm-hmm. man damaa jàpp ne képp kuy kuréel nekk professionnel war nga xam li sa baat comme ni ko bàyyi laa waxee ak sëñ amul baat bi li muy bañ li baat biy nangu ko loolu da war a fexe ba xam ko yow. bala ngaa toog événement di jàng muy màggal wala gàmm muy lay taxat wala poroxaan wala beneen événement da ngay fanaanee jàng ay cinq heures de temps wala six heures de temps. nga xam li ngay lekk. yaa ngi dégg. fekkee sa baat dafa bëgg nelaw. noo mën a def ba nelaw ba yow nga def ko. pour sa baat mën a jàppandi. nga mën a joxe booy jàng. fekkee sa baat bëggul diwlin nga moytu yu nii nii. yaa ngi dégg fekkee sa baat bëggul nga am loo jëfandikoo avant ngay toog bu fekkee de moom bëggul regg am ñoom bu ñu reggee duñ jàng mm-hmm. am ñoom nag bu ñu reggee dañuy jàng mm-hmm. am ñoom bu ñu xiifee dañuy gën a mën a jàng mm-hmm. am ñoom bu ñu reggee duñ jàng am ñoo xam ne tey jii bu ñuy jàng faaw ñu nelaw sama classe gi man bu ma manqué nelaw moom du ma jàng sa baat day fat faaw nga nelaw ba doy la mën a jàng yooyu yëpp nag jànkat bu nekk war nga koo xam. bàyyi xel waaw. naa li ñu gars yi wax rek xajul xaj. waaw ñu tëj ñu joxe ci benn exemple. parce que ci alimentation rek wala ci ci mobilité wala yooyu. Mm-hmm. ba ci ba ci kenn ku nekk sa sa sa sa sa type de voix. Mm-hmm. jox la exemple ba ci biir kuréel gi. Mm-hmm. nit ki bis bu ne mu def lu yàq baatam. ba ci koo xam ni tey voix grave la yor xëdd la. maanaam baatam mënul weesu une octave et demi. Mm-hmm. ba noppi muy njëkkante samp sa Youssou Ndour boo xam ni trois octaves la. kooku yàgg yàgg yàgg yàgg. ci mm-hmm. tële lay ah, day yàq. a bàyyi xel. ah <laughs> moom xam naa ni comme li ma émission boobu. xaju fi waaw waaw dañ koy def spécialement boo xam ne lu ñu wax ci ay. Mm-hmm. ay ay ay daaj ay et cetera nga xam ne dañuy ñëw rek wax wàllu santé. indi li ñu wax ci problème baat. li ñuy wax tam ci problème ay hémorroïdes toogaay bu yàgg bi. loolu farata la waaw loolu moom fi mu ne jot na. farata la bëri na ñu muy lor. waaw ñenn ñi bu leen tàmbalee lor dañ naan sa milieu bi dafa doy waar. dañ maa liggéey wàllu njàng am na ay affaires yu ndaw yu ci am demal gis kii affaire mystique la ñuy xalaat. mujj gi faj wolof. finalement ñu xalaat mbirum baatin diw est ce que nangam finalement. dañuy am na leneen sax lu ci am mooy am ñoo xam ni fi ma nii bu ñuy kuréel amuñ xaalis seen baat day jàppandi bu ñu ñëwee ba am soxna ah ba tàmbalee ibbeeku mm-hmm. bu amee yaram mm-hmm. day jàpp seen seen corde vocale te xamuñu ko. duñ mën a yuuxooti moo doon seetaan vidéo kuréel naan <laughs> naan gis nga sa gars yi ni yi. war na yaram yaa ma ko doon wax la benn benn Fatick nga ah, yoo xam ni. dëgg kuréel moom. te te te malheureusement ñun suñu programmation ni ko defee. ni ñu defee programmation bi mooy. Hmm. souvent dafay cant yi guddi lay am. jànkat yi guddi la ñuy ñëw li ñuy wax ci reflux gastrique problème boobu lay am te guddi gi li ñu lay jox nga xewlu yëpp yu niin la problème boobu lay am répétition ngoon lay am guddi lay am ñu ci bëri bu ñu jógee répétition la ñuy uti lu ñu reeree dem tàng naam yi wala dem nangam dem ci dibi dibitëri ba lekk ko rek tëdd ci saa si nga xam ne yow après problème hypertension da ciy am parce que lekk lu niin tëdd reflux gastrique amaat ci boo xëyee fajar teel dem liggéey waat gars yi wax nga ni vingt une heures am naa répétition. donc ñun moom. suñu rythme bu ñu sampee day daf ko a alerte. Hmm. xam ne mi ngi a am. problème tension waaw. samp wàcce rek commencé commencé miir di gis ay cinquante neuf dollars war nga xam ne am na lu xew nga seeti sa bopp. <laughs> ñu def suñu wàcce moom moom mu foog ne dañuy xaajaat. <laughs> waaw defe naa kon loolu mooy point bi nga xam ne moom lañ doon mujjee waxtaanee. Hmm. Euh, ñuy sant bu baax baax baax am na benn rubrique boo xam ni. boobu dañ koy annoncé pour émission yi di ñëw baataam la tudd maanaam dafa jëm ci wàllu vocabulaire ak lexique ci wàllu kuréel. Hmm. dañu gis ne kuréel bari na baat yu bari yu ñuy jëfandikoo baatu tubaab la ay baati tubaab la yoo xam ni euh, répétition systématisation yu ci bari baati tubaab la yoo xam ni tey jii sëñ Mountakha bu fi ñëwoon ñu ne la Serigne baat ñun liggéey bi ñu def ci kuréel gi leeral ko ko. tàggatu maanaam Serigne Ba nu mu gën a mën a. utee baatu wolof da koy wax ndax day jàpp ne teggin ji hmm. du toog ak sëñ bi di ko wax ay baati tubaab ay répétition wak ay systématisation day ut ay baati wolof di wax wolof leer ndax jàpp na ne bokk na ci teggini wax ak kilifa moom nga wax wolof hmm. euh, rawatina xalif général kon nag loolu tax ñu ne nañ xoolaat lexique bi yenn terme yu bëri ñu xam ne am na ci ndax mag ñi hmm. ak yooyu yëpp ci baati wolof lañ ko doon wax ñu delluwaat ci loolu ñu ngi ciy ànd ak euh, waa académie wolof euh, ñoom ku mel ni sëñ Ismaïla Guèye def nañ ci ak moom benn liggéey ba fan yi rek am na yónni am na baat yu ñoo yónnee baataan mooy mooy vocabulaire ci wolof. wax ma lu mel ni répertoire mooy ndénk gi moom la ñuy wax répertoire répétition tàggatu. loolu sax dégg naa benn audio bu sëñ bay Guèye Syll di ko wax naan tàggatoo la ñu war a waaye du répétition systématisation mooy nosin maanaam ni ñuy nosee mbir mi corde vocal nee na mooy wummi baat yi wummi xam naa mooy sidit mooy mooy wummi baat yi <laughs> programme mooy semb wi conservatoire mooy kuréelu caytu gi kuréel gi nga xam ne mooy caytuwaal boobu transposition maanaam jëlee ci fii yóbbu moom mooy dëppale. dëppale moom mooy moom mooy dëppale gi noonu kon noonu la demee. lu am solo euh, loolu yu am solo la yoo xam ne itam xam naa benn rubrique bu ñuy ñëw. boo xam ne incha allah dañuy xoolaat vocal bi ndax bari nay baati tubaab te bari na sax baat yoo xam ne li ñu njëkk a def mooy faaw ñu xam baat bi li muy firi. waaw faaw ñu xam baat bi li muy firi comme daal xam naa dañuy dañuy dañuy dañuy def ñaan te xam naa ne dañuy waajalaat beneen jotaay sëñ sëriñ Ba mu ñëw. mu def ñaan rek xam naa ci li dem ñu tëjee ko léegi nag xam naa benn point bu may tëjee euh, mooy euh, lu ci bari ci son yi ngeen di déglu naa loolu moom euh, son boo xamante ni bii da koy déglu lu bëree bari bëri daanaka doo ci doyal bu doon moom la ko doon laaj sëñ Ba ban son lay doon. boo xam ne muy ci mag ñi wala kuréel wala bu ci maanaam son boo xam ne daal maanaam mën na am kuréel la mën naa am mag ñi la mën na am rajas la mais daal li nga koy déglu bari na trop te bëgg nga ko loolu daal. man na waxtu bu may déglu nag mooy waxtu bu ñu waree tënk. Mm-hmm. man foofu rek laay déglu. foofu ngay jël son bi ngeen war a tënk. waaw foofu laay déglu euh, waaye bi jàngoon 2006. Muxadamaat 2006. daal suñu Saliou Thiam. ah ndeysaan ah, ndeysaan ah, moom moom leneen la moom. ndeysaan ndeysaan <laughs> ah. Muxadamaat boobu dafa laa gis naa la ci yow li nga doon joxe signes yeeg yooyu noonu. waaw moom de di di ziare sëñ Lamine Sey. ndeysaan sëñ Fall waa kuréel gi yëpp. waaw ndax sànq rek. maanaam sant sëñ Tuubaa waaw ci lépp rek ndax moom boroom xasida yi bu la tànnee moom waaw du sa du sa jàmbaare wala judd wala leen waaw ndax moom ni ko sëñ Saliou Mbacke daan waxee xasida yi bu doon njanaw ñu koy jàng ñooy laafi ñi koy koy déglu ñooy ñooy waaw loolu moom maanaam gën a sant santaat sëriñ bi rek. ci tawfeex googu. te beneen bi mooy. Euh, bëggoon naa ñëw sànq. ndax euh, kuréel moom. def naa boo amee tawféex. am foo jaar. ci ay ñoo xam ne ni maanaam ñooy ce sont les précurseurs maanaam ñoo war ñoo xàll. yoon bi. Mhm. histoire yow ku ne xam na ñoom. Mhm. seen saale ci ñoom la ko jaarale. Mhm. ba ñu ñu ñoo ñoo ñoo wane yoon bi. Mm-hmm. nu nu war a fonkee xasida teewlu gi. Mm-hmm. sellal gi yëpp. waaw ndax boo xoolee kuréel yi ngay dégg léegi ñuy góorgóorlu ci njàng. Mm-hmm. ñu si bëre boo xoolee am na ñoo xam jaar nañ foofu formation isbitar waaw boo xoolee léegi ñu mel ne sëñ Moussa Ndiaye ay sëñ Lamine Abdoulaye sëñ Abdoulaye Diop. sëñ Moussa Dieng. waaw ñi nga xamee ne ñoom ñoom ñoo jiitu. Mm-hmm. jiitu ci loolu après ba tàggat ñeneen ba ñooñ mën a tegwaat ci mm-hmm. ci ci yoon bi jëlaat ñeneen di leen tàggat mm-hmm. waaw maa ngi ci waxtaan ak suñu Yuusu bi nee ko am na loo xam ne moom dafa laaj waxtaan ndax xasida yi dafa doon loo xamee ni du yaatu la ndax sëñ beeka nammee kuréel yi yaatu la mooy wane ni sëñ moom liggéey mi ngi gën a yaatu ndax sëñ Sall daan wax moom ci mu xamee ni moom yoon baa ngi yokk mooy kuréel xasida yi ni ñu yokk waaw sëñ Sall loolu daan wax waaw loolu day yërmande sëriñ bi. Hmm, ndax amul fooy dem léegi amul benn bis boo boolu boo boolu boolu boolu déggul xasida hmm. maanaam ngox boo dem. Hmm. xasida yi mu fay jëpp. waaw te li ci am solo mooy fexe daal li mel nii. bu amee rek xam ndaw moom bu amul ku ko teg ci yoon rek. day jàpp li mu def baax na. ndax xale xamul. waaw ndax euh, ñu ci waxtaan ak sa njuus. lu mel ni daara ji. nga xam ñoo jiitu ñoo wane yoon bi. Euh, ñoom bu fekkoon doon ay jamono doon tëraloon loo xamee ni. Mhm. ko képp ku xam day ñëw soo koy tàmbali ci kuréel. Mhm. dina xam ne lii moom fii lay mën a teg yoonam fii lay teg tànkam jaar fa. Mhm. waaw loolu bu ko defee ñëpp dinañ am taw feeku waaye ñëpp am taw feeku. waaye naa loolu moom dina ñëw. incha allah incha allah waaw. sëñ son bi nga xam ni da nga koy déglu lu bëree bëri bëri. mi daal suñu di maalaw di suñu su moom. <laughs> sëñ Abdoulaye Fatick. waaw noonu ah, moom xam naa ni eh, moyen bu sëñ daaj sëñ Mayib. ci mhm. Fassou Dóor bi moom moom. doo ci doyal waaw dama koy riimante sax <laughs> ku ne dama koy dama koy jàngatu ndax dafay daf may yóbbu sori. tubaab ti mhm. ndeysaan waaw man euh, sélection sëñ Cissé bi daal di jàng Korité 2000. ah te amatoon naa yeeg karam naa yu demee noonu. sélection bu gudd boobu. Hmm. moom tamit nu ma ci doyal moom. moom yàlla. ndeysaan moom lool ndax daf may fàttali suñu Saliou di ma yu bëree bëri xam naa foofu la ñuy tëjee man ku mel ni man moom jës bul xulóob bu sëñ Boole moom dama koy déglu lu bari bu dee wàll kuréel moom euh, is bu tarxiya euh, kuréel 1 Touba jës bi ñu jàngoon Daaru Muxti 2016. waaw boobu moom moom itam dama koy déglu lu bëri waaw yooyu daal moom <laughs> mooy yi nga xam ne dama koy déglu lu bëri ci ci cam kon daal lii mooy jotaayu xam-xam le hmm. tey ñu doon waxtaan ci wàll kuréel tàmbali waaye nag yeneen jotaay la yoo xam ni hmm, eh, incha allah buñ ci ñëwee dañuy jël benn thème nga xam ne dañ koy toj seetantal ko woo ci ay borom xam-xam ñu wax ci seen kàddu hmm. incha allah ñu fas ko yéene ànd weer wu nekk kon defe naa mën nañoo tëj ba mu daaj daal di ñu ñaan ñu daal ñaan ihdi jamii ana siraat almustaqim wa bisayin kullana bila sahin ihdi jamii ana siraat almustaqim wa bisayin kullana bila sahin laka khitaab ya qarib ya mujib ya man bi la samani khayrul ajib habli walil lazina ta'allaqu يا هدى بي لخير إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود والمعين ضللتنا بك عليك يا رقيب يا من به ينمو له كل نقيب يا ذا الصراط المستقيم يا ابننا هدى بي يحبطنا من قبلنا يا ذا الصراط المستقيم هب لنا هدى به يحبطنا من قبلنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وجه لنا سواد دين الفائقة وتكفنا ردا مع القلبائقة وبيننا وفق مع الأولاد يا مالك العباد والبلاد وباركا فينا وآتي أمرنا يا مصيبا بخير رب درنا لنستجب يا خالق الكبار وجملة السخار أنت الباري وهب لنا ذرية هل تديم العمل الصالح يا خديم وهب لنا ذرية تديم العمل الصالح يا خديم اليمن واليسر وخير سددي في خير جير قد أتى بالمدينة المدد قد فاق كل ذي يجيب الرادي المالك المكرم الملتحي فاز سعيد بالغران منني نجا بما يديم خير سددي فاز سعيد بالغران منني نجا بما يديم خير سددي فاز سعيد بالغران منني نجا بما يديم خير سددي فاز سعيد Tubashti